asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yëpp di nuyu rawatina nag mboolem mbokki taalib yëpp di leen siyaar ci weeru mag wii ni nga ko di leen nuyu ci turu sëñ Seex mi nga xam ne moo jiite kër sëñ Abdou Khadir Mbacke di nuyu di njëkk ci siyaar bi sëñ Muntaxa mi nga xam ne. moo tooge jataayu sëriñ bi ayyadahu llaahu wa nasara wa atamma muraada di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëñ bi yépp nag di leen sant bu baax di sant fu ab taali bi mën a ne ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañ ne muy weer wi nga xam ne li ñu ci gën a itteel mooy ñor gi ñoroon sëñ bi bëgg gis sëñ bi bëggoon weer wi itteel gi mu ko itteeloon mooñ ci soññ soññ goo xam ne tax na ñun ñëpp taalibe bi yëpp weer wi nekk seen mbégte tax na weer wi ñu jëf ko weeru traite boo xam ne loola faatoon ci at mi dangay ngay jàpp ne mën nga ko cee dagg rawatina nag ñi nga xam ne am nañ tawféexi di ko defee Tuubaa walla seen xol di ko fase Touba donte seen jëmu téewut ndax na leen ko waxee woon ci leen ne eh, sëñ Abdou Khadir moo waxoon ne sama turandoo moo ko wax ne ko dama koo tàggu rek di bëgg fekk ko njaareem muy koor gi jub mu ne ma ma ne ko Touba laay bëgg a dem nii de fe sëñ moo di du bëgg a ñëw ñëw Touba mu ne ko ah waaw sa waaye de nee na woon jaamu yàlla de baax na fépp waaye sa kane na Touba Seydou Xarit nee na tam ci ñun nag lu sakkan la ñuy wut <laughs> ca la doxee koor nga sax bu ko fekkee bax daat day ñëw Tuubaa kon nag ma dolli leen ci nag ren beneen xisa wax ko dégg sëñ Mandumbe dafay dadaa bay xabaan bi sëñ bi ne nekkee ci géej gi boo ku ne loo xam ci lu mën a saytu njaboot gi yaa ngi ko yóot sëñ Mandumbe ci la demee xabaan ba gis ko woo maam Thierno ne ko gis naa barab bu neex a liggéeyee loolu moo fi yóbbu mu yi ba mujj ñoom ñëpp si saa nag ak ñëpp mu fekk fekk leen fa loolu moo ko sawab baa ngi ci géej gi bi sëñ mu ci foofa mbay ma nangu lool def lu mu bay nag yit ko sëñ bi ba sëñ bi daana wax sax naan xanaam eh, am boo xam ne boobu loolu moom ci njaareem la daa jóg dugg ci eh, ab karoot nii rek di doxan di doxantu ci ci ci bitti bi ba romb tool yi sëñ Mandumbe yi de yi denoon ak njaareem mu tool yi wutee lool ak yim dendal mu ne xanaa malaaka yi dañoo xam ne li muy bay lépp mën la ko yën mu tax tool yi mel nii <laughs> loolu mu si saari laa ko déggee lii may bëgg a ba tey ci noonu li mën a euh, euh, muy muy indi nag di yónnee si lu mu indi yónnee si ñun lii fu ko béyee ñu ne ko xabaan mu ne xabaan xanaa daa mel ne sama dëkk ba muy Touba ñu ne waaw mu ne ni Touba nangook yàlla ni la xanaa daa nangoo mbay ni daa nangoo ni Touba ak jaamu yàlla noonu la nangoo mbay kon nag kon ngeen xam ne kon ndeket tubi dëkk bi noonu daa nangu ak jaamu yàlla loo bay rek mu mu nangu loolu kon mooy li xam ne daa uma leen ko nettaliwaale <laughs> waaye ko ginnaaw man waajiru ma dara nag tey ma andil loon lu ngeen lu ngeen daaw dégg <laughs> waaw waaw kon nag alhamdulilah ko ñaa ñu daal xam ne kon al ñu daal xam ne kon ndeke dëkk bi daan nangu ak jaamu yàlla waaw xam ne kon loo ci def rek walaahu yu daa li man yasaaw moom la yàlla jëflante yow waaw da koy ful rek amul fu mu yem hmm. ndax sëñ bi daana wax ne man jaa bil falahu xasru amsaaliha waaye nee na falahu xayrun minha nag moom amut fu mu <laughs> amut fu mu yem nee na la gën a tuuti ci ak fayam mooy mooy xasru eh, amsaaliha waaye falahu xayrun minha amut fu mu kon nag dëkk bi ku fi ne war ngaa sant yàlla ku fi fasoo war ngaa sant yàlla ku fi aju war ngaa sant yàlla waaw noonu la demee ndax fu teeli bi ne rek sab xol a ngi tubaa ba tax na tàbbi nga ci biir wax ji waaw waaw kon nag ndax fa nga ne fu mu doon ci réew mi eh, ndigalu sëñ bee fa yóbbu ñooña waaw kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant bu baax a baax ci bis bi di sant ci weer wi di sant it sëriñ bi ndax moom dafa jubóog yàlla te yàlla taw tawfiixal ko mu tànn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnee loolu bi Mbàkke moo ko daan nettali bi bi bi sëñ bi ta bi yonent bi tànnee taw feexal ko mu tànn daa tànnaat ci biir yonent bi tànn te na mënoon na ne seeti la fa desoon mu tànn ca <laughs> waaw <laughs> waaye gis nga ni ko yàlla yee loolu suñu saaka nag <laughs> yàlla yee la kon nag waaw yàlla yee la kon nag nañ xam ne rek dañoo euh, nañ xam ne daal yàlla ñu ko taw fii xale moom sëñ bi waaw waaye kenn jëfalul yàlla lu tax nga mu mën laa booleeg sëñ bi waaw kon nañ gën a góor góorlu weer wii nañ ko fonk ndax ndigalul yàlla waaye ñun murit yi nañ ko gën a fonkaat geneen fonk ngir sëñ bi ni mu demee yàlla ak fi ko weer wi toog fe fi ko weer wi toll ak fi ko alxuraan toll te lu ne yàlla tëbb na ko ci kàttanam waaw ndax lu ne bu ci sëñ bi duggee rek yàlla defal na ko ci lu mu ci mus a defal kenn waaw kon nag alhamdulilah ñun ñi aju ci moom ngeen xam ne nag weer la woo xam ne fu mu mas a fu mu ko mas a fekk da koy dundal di ko guddi gi daanaka. dañuy fanaani dukk dukki rek loolu sëñ bi moom daanaa dégg mu di ko nett dañuy fanaani dukk dukki ba bët set nga gis ndaw yi ñuy dukk dukki jàkka ji mooy jiiteel boppam bu noppee wax sëñ Mahmoud Fall mu jàng xasida sëñ bi toog déglu ko ba xasida gi àgg moom nga xam ne yaa mukrima dayfi gii ci rek ko daa jàngalu yaa xayra fi buñu demee ba weer bi agsi fii muy jàngal yaasal bu saaraati te ci biir jàkka ji la koy jàngee sëñ bi toog di ko déglu nga ne sëñ yu nee na bu mu sa sëñ Mahamad yeexee ñëw sax day day jàng xasaayit gi ba së sëñ bi jóg mu ko a julli <laughs> eh, kon nag eh, noonu mooy ni nga xam ne nii la doon dundali guddi gi te bu jubee maam Aminta bu sa daana wax ne bu jubee loo ko wax mu nangu moom sëñ weeru jubee loo ko wax mu ne xanaa danga nga koy waajalee sama gan gi <laughs> gan ko tedd gi waaw kon nag noonu mu waxe ne in inni uhibbuka hubba zaati moom foofu rek la neewoon da koo bëggewu ni ñuy bëgge jëmm buy bëgg a dem waxtu wu ne da koy jalo gan gu baax ngi bëgg a dem kon mm, bu weer bi masaa màggat toll fii fu mu toll rek danga ko dégg muy muy jalu nga xam ne gan go gan go gum fonk te xaritoo ko mooy bugg a tàggoo waaw moo tax mu defal ko xasaayit googu sax yaasal bu saariyaat yi nga xam ne ba mu koy tàmbali ci ci géej gi la ne am na ci loo xam ne nag ba mu koy àggali mi ngi Daaru Salaam waaw waaw ko laf ko bu ñëw Daaru Salaam àggale ko <laughs> moo tax dana ko ci tuddaali sax <laughs> daari salaam yi wa fi Tuuba bi dikrin xakimin qad nafa darari <laughs> saaltuhu baxda hawdi bi rida lahuma an laa yulaaqiyani sayun min alkadari wa an yusallimani min kulli mahlakatin bin musa man bi mat yi xat salaati bin man bi mat yi was salaati xar yi foofa ca la ca la waxaale it maanaam gayndeeg gi nga xam ne moo moo nërmeelu woon ci kanamam wax wax maanaam wax na lekk ko may muhammadin man mata yalqal yalqal hida abadan walla usoodan la daa ajaamiha taxuri <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wa boo ngëbee ci moom te ngëb ga dëgg daje boo dajee dajee gaynde gaynde ga day gëlëm waaw lu xam fu nu muy defante yow am na foo mu waxee ne tali ni waaw loolu mooy ba mu nee ci Tuubaa te gaynde ga waaxu ba di daq ngara ba fekk ko fi muy tawali taarif yi mat lawul foo seeni nga nga ngara gi làqatu ci kaw làqatu ci sëñ bi fab ñaari tànkam de wekk ko sëñ bi fekk sëñ bi bind sëñ bi eh, gaynde gi di ko xool di ko xool ba mu yàgg mu bind xasaayit moom lu muy bind lu ko ci feeñ dana ko ci waxaale moo tax mu ne wala asoran la daa ajaamiha tali ni gaynde gi day nooy <laughs> loolu moom Tuubaa la xewoon <laughs> Eh, fii fii mu taalif fi mat lawul foo séeni rek muy fi kërug Tuubaa gi rek boo gis nga boo ci ak dimb la hmm. ah dimb ga loolu ci ci ci kër Sëñ la bokk léegi sax kër loolu la foofu foofu dimb googu la di taalif mat lawul daay ba làqatu ñoom kon nag ñu waaw loolu kay moo gën a yéeme te daa fam ñaari tànk yi wékk ko sëñ bi waxuma la gaynde waaye ngara sax comme comme tegooni tànkam nga samp sax ah, nga samp sax nga wax nag kon nag alhamdulilah ñu kon ku wéeru ci moom wala nga làqu ci moom sama xel war naa dal waaw ah, ginnaaw bahima yi ñoo ko xamee noonu waaw waaw kon nag alhamdulilah ndax na eh, eh, moom moom des na ko moom la ñuy déglu fii moom lañuy ñuy fee waaw ah, kon nag yàlla nu yàlla dimbale eh, am na la xewoon loo xam ne moo ko nettali waaye ba mu xëyee sëñ bi dane kooka bu demee foofee dana xam ba xam foofa man lañu fay diglu am kaneen lañu fay diglu <laughs> waaw dana xam ba xam man lañu fay diglu wala kaneen lañu fay diglu <laughs> kon nag alhamdulilahi rabbil alamin kon nag maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di sëñ Mor sama doom ji laa waxoon tey ne ko na waxtaan téye naa ko lu yàgg nag ndax waxtaan wi yàgg na waaye lim leen wax ci weer wi lim leen wax ci bis bi lépp dëppoo naag ni ni ni ko sëñ bi waxe ci xasaay yi ak ci mbind mi kon nañ na ngeen ci gën a góor góorlu bu baax a baax nañ gën a góor góorlu it ci fonk njàngum xasaayit mi fonk njàngum alxuraan mi rawatina ci weer wi weer yëpp nag lañ ko war a fonk waaye weer bu ñëwee dañ ko war a gën a sakkanal rawatina ci dëkk bii nga xam ne nag euh, euh, daa nangu ak jaamu yàlla <laughs> kon yàlla na nu ci yàlla dimbale te te te xam ne nag moom luñ ci def rek buñ ko ko àddiyaale yàlla nangu ko waaw kon yàlla nu ci yàlla dimbale ngeen xam ne nag eh, jullit ñi yàlla da leen a ñeew ñeewant ngir yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu wutal leen genn guddi goo xam ne wecc na ab dund ndax juróom-ñett fukki at ak ñett yu tegal nga mën ko am ci genn guddi inna ansalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayru min alfi shahr junniy weer nga man ko am ci genn guddi loolu xéewal gu defal gu yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa waaw te te dafa gis ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ñu njëkk ñi daa guddeew fan ba nga xam ne fala bi sa fii mu alfa sanatin ilaa xamsiina xaaman xam nga loolu kon ñooñu dañ daa guddi fan lool dégg nga mu ne nooxin rek ah, eh, junni at yu manqué juróom fukki at sax na ko ci ñoom te fekkoon na sax eh, du ay atam eh, maanaam lam fa sax waaw daal lam fa nee rek fe ëpp nay atam daaw ah. kon lam lam doon yeneen te kon nag mel na ne tawféex ji ñu yàlla defal la joo xam ne bëgg na ñu bari aw yiw te loolu nag daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko may mooy eh, eh, ku yàlla dimbali rek da nga ci fekke ay ay koor ay yoon yoon yàlla na koy yàlla defal te nag genn guddi gi gune mën nga cee amee eh, xayrun minal fi shahri genn farata joo ci def ci weeru koor juróom-ñaar fukki farata la tolloo sabiina faridatu naafila goo ci def farata la tollal ci burut koor waaw kon nag weer mata euh, farlu la te fii mu màggatee nag fii la gën a ëpp doole ndax yonent bi ci ma sa àgg day takkaat ndiggam sadda mi saraho wa ay xasa ahlahu day yeewaa këram ñëpp ñuy fanaanee xoole buñ tollee ci fukki guddi yi mu takkaat ndiggam yokk ak jaamu yàllaam ngir bëgg guddi yi guddi yi yiw yi ci ne bañ koo faat te ko ko defee noonu it fokk nga dajeeg laylatul xadar waaw kon nag yàlla na ci yàlla dimbale ñu am ñu ñu sun borom defal ñu ci xabool ak rida yim ci diggee yëpp muy njéggal ak yërmandi ak gore ci sawara yàlla defal ñu lépp ndax fukki fan yu ne am na ci lu mu ko ci jagleel waaye loola rek koo ci amoon mu day sëkk ndax la maxfiratun min allaahi wa rahmatun xayrun mimmaa tajmaxoon mboolem lu ngeen di dajale njéggalu gi yàlla ko yërmandi moo ko gën ci yéen kon nag yàlla na nu yàlla defal njéggal ak yërmande defal ko suñ way dawlu yëpp nag waaw ba ku ci ne weer wii nga yëg ci sa bopp ca fa ak yokk waaw ci ci ci njéggalu yàlla ak yërmandeem ji nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bu ko dee nag ñu ñun ñëpp nag ñu gën a góor góorgóor góorgóorluwaat ci ndigali sëñ bi di wattandiku it ak ay teram ndax defal nañu lool fu mu nañu xool ko xool leen ko rek war nañ ko xool ndax ku la ku la ah, wolof dañ ne ku la may bët del xool fa ko neex moom nag yàgg naa lim ñu may raw na ay bët <laughs> ndax moom moom moo moo ñu defal lépp rek waaw kon nag ku ne xam na lim bëgg ku ne xam na li eh, eh, li nga xam ne eh, bëgg ko kon nag nañ daw jëm ci lim bëgg rek loolu daal ku ko def la nga bëgg lépp tey adduna ak la nga bëgg lépp alaaxira moom dana la ko defal ndax féete nañu fépp te mën na boppam waaw kon nag maa ngi nii ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu yàgg koo fekke ngeen yàgg ko fi eh, jël si ñu yàgg koo ànd te yàlla nangu lépp nag eh, ndax eh, jaamu yàlla loo ci def rek ñaanal yàlla nangu ndax yàlla moom li muy nangu mooy looy def rek loo loo def ngir moom innamaa yataxabbalu llaahu mu muttaqiin waaw eh, kon nag yàlla na yàlla nangul eh, wa kullu aamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala